xamante ni fii la sëñ bi nekk fi nga xam ne fii la bi di di dalloo ñu ngi ko fekk nag mu mel ni dañ ko fekk mu nekk ci waxtaan bu am solo euh, ñu fekk koog benn mbokku taalibe euh, bi ne ci ay leeral ay waxtaan bi am solo xam naa jomm euh, sëñ bi dafa jàpp waaye incha allah xam naa ci kanam tuuti. ñoom suma noppee ci waxtaan bi muy waxtaan bi nañ ñu jël incha a jëflanteeg moom ay waxtaan yoo xam bu ko defee ñu déglu tuuti ci waxtaan bi nga xam ni moom lañ fekk sëñ bi di ko waxtaan ak mbokk taalibe bi ñu déglu ci tuuti rek. te yàlla moom nee ñu ngi aju ci nga tuub ko tuub ko rek léegi waaw saxoo istighfar daal dafa mel ni comme comme koo xam ni yére yi dafa tilim daal dafa gàtt mm-hmm. la koy la koy fóot daal mooy istighfar saw bi mooy mm-hmm. istighfar ndeysaan aha beneen bi man masiih ibnu maryam illaa rasulun qad xaalat min qablihi rusul waaw ñi nga xam ne ñoom ñoo doon tuumaal mm-hmm. yonent yàlla di ko jiñ yàlla moom la léegi leeral la fii lu jub yonent

إن علينا جمعه وقرآنه